li le mandat président Macky Sall Fayunto. Le mandat président Macky Sall bi yëpp papa tape toto toto tape dodo dodo tape tata tata tape fanta papa tape dodo mandat bam le loolu moo ko yàq bi mu demee nag ba gis ne yoon ba commencé am ay projet ci la plan Sénégal émergent loolu ñaari tontu laa ciy tontu képp koo xam ne def nga loo warul def ci dëkk bi saax-saaxee askanu Sénégal du président Idrissa Seck moo lay topp mais yoonu Sénégal moo lay topp loolu mooy benn ñaareel bi am na nag foo xam ne ñun duñu fa yegg ci chasse aux sorcières maanaam topp fekk loi bu ñu créé woon 1981 kenn mosu ko laal nga dem génne ko pour régler juste des problèmes avec des adversaires politiques c'est une dignité républicaine mayuñu